alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi allazina shaadu din ni kon suñ doon waxtaan ci soxna jaara dañuy jël rek euh, euh, ay mbind yoo xam ne sëriñ Bachiru mu ngi ko bind ci téeram boobu mu ne baaxal xadim di ci wax soxna jaara mu tënk ko ci lu gàtt wax ci mboolem ay jikkoom ak i melokaanam te loola mooy daf ne kaanatil walidatu mariama jaaratullaahi saalihatan afifatan dayinatan kasirata salaati wa mustaslima li rabbiha qaimatan bi waajibati diiniha baynaha wa bayna rabbiha wa fima baynaha wa bayna cheikh al imam wa kathiran ma yaxki alayhim xikaayaati saalihin wa taqul min dabi saalihina qiyaamu leyla loolu mooy buñ koy euh, sarxu dañ koy jël euh, jumla par jumla bi ci njëkk wala baat par baat mu wax ne moom euh, na Mariama nekkoon na saaliha saaliha nag mooy dayob maanaam jikko yu baax salaa ndax yonente yëpp bi leen yàlla limee tudd leen def ne kullun mina saalihin kon salaax maanaam muy loolu rut ba daraja bu kawe la yéen si si si Ahmadul bi muy ñaan wittalu jigéen soxna daf ne wa zawjatan saalihatan tu'inu kon critères yi bi mu ci njëkk a tudd mooy eh, salaax boobu mu wax loolu kon di loo xam ne euh, moom lañ njëkk a wax ci melokaan yi soxna jaara nga xam ne loolu ëmb na lépp mm, li melokaan yi ñuy bëgg a tudd ci kanam bi mu waxee loolu nag mu ne nekkoon na afiif afiifa afiifa afaaf moom itam jikko bu baax la boo xam ne jigéen ñëpp war nañ koy roy ci soxna jaara ndax si euh, yonentu yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam bi mu waxee yi tax jigéen a tàbbi àjjana daf caa limaale loolu eh, ndax def ne eh, fekkee jigéen julli ne julli juróomam woor weeru kooram wax topp jëkkëram daan ne wattu boppam wattu boppam mooy alafaaf muy fegu hmm, loolu nag eh, yàlla digalal na ko jullit ñi ne wa qul lil muminaati yaxfadna furuujahunna wa qul lil muminaati yaxdudna min absaarihinna wa yaxfasna furuujahunna loolu moom it di jikko bu baax boo xam ne ñi warees na koy roy ci moom mu delloo xam ne moom soxna si mi ngi nekkoon dayyi na dayyi na mooy ku ku diinewu koo xam ne maanaam day tënku ci diine di topp ndigal yàlla yi di moytu ak tereem moo tax eh, bi eh, Seydina Muhammad waxee critères yi nga xam ne moom lañuy ñuy taamu ci jigéen pour takk ko daf ko def ñeent mu wax ne mm, tunkaxul maratu li arbain ne li jamaaliha dégg nga wali maaliha wali xasabiha dañ ko tànn dañ ko tànn ngir ab taar dañ ko tànn ngir e, alal dañ ko tànn ngir ab juddu daane waaye nag fas var bi zaati diine maanaam nag ka am diine booy tànn tànnal kooka tari ba dee daaka boo ko deful perte nga kon diine jooju ko am diine loolu lu ñu taamu ci jigéen la doon loo xam ne itam ci melokaan yi soxna jaara la bokk moo tax buñ koy roy warees ko caa boole ci li ñuy roy ci moom loolu di loo xam ne mm, bokk na ci sëñ Mahamadul Bachir tudd ci e, téere bi mu waxit ne kasiratu sala wa saw mu wa sadax ku bari woon lu muy julli la ku bari woon lu muy woor la ku bari woon lu muy saraxe la loolu euh, lu ñu taamu ci jigéen la jigéen ni yàlla digale góor muy jaamu yàlla ni la ko digale wasallat xam saxaa bokk na ci melokaan yi nga xam ne bi muy lim waxaale na ko euh, wasaamat saw maha bokk na ci melokaan yi nga xam ne tuddaale na ko kon ni ko mm, sëriñ Basiiru melale rek daa mel ni dafa jël xadis boobu rek xarfan bi xarfin indi lépp uqnuti li ki wasjudi warkan yi ma'a raakihin loolu ndigal la loo xam ne yàlla bi mu koy jox mariyama mboolem jigéen ñëpp duggaale na ci biir ma ni jaamu yàlla di julli di rukkoo di sujjóot ànd ak ni ko góor ñi defee nga ànd ak ñoom di ko def noonu saraxe boobu mu wax itam mm, bi muy lim melokaani jullit ñi nga xam ne lu mu tuddal góor tuddal ko jigéen wal muslimin wal mutasaddiqiina waxaaleen ko mutasaddiqaat kon yooyu yëpp day yoo xam ne ni ñu ko taamoo ci góor ni lañ ko uh, taamoo ci jigéen bokk na ci melokaan yi nga xam ne lim na ko muy daf ne dafa daan uh, taxaw ci li ko war ci digganteem ak boroomam ba noppi nag taxaw it ci li ko war ci digganteem ak boroom këram uh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ayuma imraatin maatat wa zawjuha anha daxalati jannata képp koo xam ne ci jigéen ñi dafa faatu yóbbaale ngërëmul borom këram kooku àjjana mooy doon këram loolu di loo xam ne kon rees na ko roy ci soxna jaara ndax ku nekk dégg na li ñuy nettali ci sàkkir woowu ko soxna sëriñ Mamoor téye la woon ak nam ca defee yooyu yëpp yoo xam ne buñ ko ca defee référence donte mënuñu àgg ci fa mu àggoon itam waaye ka ko def référence dana doon royukaay ci biir jigéen ña mu nekk euh, loolu di lu lu lu lu am solo mu dellu waxaat ne kaanat turabbi al awlaada wala awlaadaha ala al muruati wa taharati mu ne moom soxna jaara daf daana yar ay doomam ci mbañu rus ak laab ak ak baax jikko yu baax yëpp loolu ku ne xam ne ne jigéen lu ñuy wax éducation de baas moom moo ko yore ndax mooy ki nga xam ne mooy njëkk a amee xale bi bi muy a dugg àdduna lu muy xam moo koy xamal ci ndawam kooku kon laaj na mu ngànnaayoo loo xam ne moom lay jox xale bi balaa dem ca daara ja loolu nag jigéen ji ko man mooy jigéen joo xam ne fekk na joxoon nañ ko lool defoon nañ ko yaroon nañ ko jaarale nañ ko foofu jàngal nañ ko mooy tax kon bu amee doom man koo jàngal man koo yar man koo euh, defal euh, loolu moo tax kon jigéen ñi war nañuy roy soxna jaare ci loolu lu ñu occupé occupé ci seen i liggéey ak seeni activité war nañu fexe ba am ay waxtu yoo xam ne dañ koy toog ak seen doom di leen yar di leen xamal liñ leen war a xamal loolu nag bu ñu ko waxee euh, gis nga soxna jaara mu wax ne daf daan dafa leen daan nettali xikaayaati saalihin di leen wax naan min taabi saalihin qiyaamu layli su ne leen wax naan mag ñi baax ñi nii lañ meloon nangam ak nangam suñ nangam nii la daan def daal di ñoom dañ daan naafi la guddi gi loolu liñ ciy jànge mooy xale bi da koy xamal démbam démbi maamam xamal ko maanaam cosaanam xamal ko lam am ci ay royukaay yi maam yoo xam ne wóor leen fiy jéggi di royu ñooña ndax gis nga euh, bi ko sëñ bi ko soxna si dee li di leen ko li nettali sëñ bi mag bi ni ko sëñ bés bi wax ne ni ca saasa moom da fan daal da tàmbali bu guddee mu dem ci jullikaay bi taxaw di naafi la te boobu booba dalagul alxuraan waaye dégg gi mu dégg soxna jaara di wax ne mag ñi dañ daan ñu baax ñi dañ daan dañ daan naafi la loolu la daal di jël moom itam daal di koy def ab mm, royukaayam ba daal di koy tàmbali nga daal di gis ne kon gone bu accès ci kër gi bu juddoo ba xàmmee li mu gis rek moom lay daal di def royukaay ba tax na kon jigéen ñëpp war nañu fexe di uh, ci seen xale yi leen jàngal soo amul temps wu mën leen a jàngal itam am na ay eh, yeneen yoo xam ne lu mel ni ay eh, am na ay théâtre yoo xam ne day jàngale jaari jaari yonent bi sallallahu alayhi wa yooyu yëpp xale yi dañ ci intéressé wu nga di leen ko tegal ak waxtaan yoo xam ne day tolloog seen niveau yëpp fi ne jaadu woon na euh, ñu di ko amal nga xam ne dañ dañuy xool fa xale ba toll rek ñu di ko fa jàngale maanaam mag ñi ak jikko yu baax ba nga xam ne maanaam dana ci intéressé wu loolu lu am solo loo xam ne res euh, na koy roy ci soxna si ndax nii mu ko doon nettalee man ngaa wut kaset mm, teg mu mu mu di ko mu di leen ko nettali euh, ci anam yu bare bare yoo xam ne yi xew ci jamono ji léegi nga def nga xam ne da nga cee jaare yow di leen di leen cee euh, xamal seen démbi maam ak seen i seen cosaan ak li nga xam ne moom moom ñoom la ñu war a def ay royukaay moo tax euh, jigéen noonu la war a yare ay goneem ba buñ demee ba toll ci war a jàng njàng moom arijaalu qawwaamun ala nisaa jooju daf caa duggalaale ne moom it moo war a yor éducation gone yi ma leen war a yar ma leen war a eh, xamal ndax loolu jigéen ni ko góor ma ne mënewu ko ne ci suñu euh, société bi ñu dund ñun ba tax kon bu demee ba toll ci war a jàng war a kii nag mu bàyyee ko baayam mu seet nam war a jànge mu jànge na loolu ni suñu mët lamin koy jëm mooy doon dénke Euh, doomam joojee mu doon joxe ne ko boo demee sa borom kër de ko jàppale ci dund ba te bàyyee ko yarub gone yi euh, kon loolu itam lu am solo loo xam ne jigéen ñi war nañ ci roy xam ne xale bi daal éducation de base bi maanaam mooy bi muy ndaw ba ni muy war a tàmbalee jànge loolu yaa ko war a assuré waaye bu demee ba tàmbalee jàng nag nga bàyyee ko baayam teewul nag nga di ko jàppale ci loo man ci yaram dañ ciy daal di dégg ne jigéen itam kon war na fexe ngànnaayoo xam-xam boo xam ne dana ci man di yare ay goneem lum mu gàtt-gàtt mu xam loo xam ne dana ci man di yee ay goneem ci buñ tolloo ci at yu mel noonu kon yooyu yëpp di yoo xam ne wares na koo jàng ci jigéen war na koy roy ci soxla si xam ne euh, jigéen ji nekk ci kër kilifa moom itam moo war a gën a comporté woo comporté bu comportement bu baax moo war a gën a roy soxna jaara ndax moo gën a jege xadara ba moo gën a euh, yàlla ci lu mel noonu suñu xoolee alxuraan li muy wax ci waa kër yant bi yaa nisa nabi lastunna ka ahadin min an nisa bokk leen ak yenn jigéen ba tax na kon bu ngeen defee lu baax dañ koy ful ngeen am ci teyaa ju kawe ji nga xam ne ñeneen def nañ ko waaye su ngeen defee safaan ba noonu dañ koy ful man yaqunun minkunna lillahi wa rasuli wa taamal saalihan nootiha ajraha maratay walbatukaan a yaa nisa annabi man yaati min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudaaf la al azabu dixfayna kon loolu mm, itam warees na koy bàyyi xel naka noonu itam bokk na ci li ñu war a jàngat ci soxna si te jigéen ñëpp war ko bàyyi xel mooy eh, jigéen ji nga xam ne dafa nekk ci ron nit ku baax moo xam borom xam-xam la moo xam wàllu la moo xam lu mën a doon kooka taxul lool rek nekk ci ron kilifa rek taxul mu war a doon royukaay royukaay ka teg ci kaw yoon moom la ñuy jël def ko royukaay waaye du caagee ni soxna si kilifa su nekk war nañ ko def royukaay nit nga xam ne itam soxna soo xam ne dafa nekk ci koo xam ne dafa sàggan ron ko sàggane téewul mu war a mën a doon ku baax waaw loolu alxuraan jox nañ ci ay misaal. wa daraba allahu masalan li si na kafaru imraata noohin imraata lootin waaw imraat soxna su noohin nga xam ne ab soxna ab yonente la woon te teewul mu mel mu nekk itam Firawna li muy bon bon soxnaam nekkoon ci agoranam te teewul mu doon ab royukaay di ko baax a baax kon jigéen fu mu mën na nekk di sëy itam donte borom kër ba melut na mu war a melit moom war na ci ak positifam ak njàmbaaram war naa góorgóorlu ba mel ni war a mel ndax loola waru ko mën a gàllankoor. bokk na ci yi nga xam ne itam war nañ koy bàyyi xel mooy jigéen ñi léegi muuraay dañ ko jël am ñuñ ko moomale maanaam euh, ñi koy def ñu ne muuraayu muuraayu nangam la damay bañ a tudd aw tur waaye am na ñoo xam ne moom ñoom la ñuy askane la loolu ba ñu bare bari sax léegi ci murid yi seeni soxna wala seeni doom bu ñuy muuru te dañuy daal di jàpp ne ñoom loolu seenu murid des na wala ñi ngi roy ñu bokkut ak ñi ñu war a roy te fekk na muuraay moom murid moo ci war a jiitu sëñ Touba ci misaal yi muy jàngale rek waxuma la li muy jàngale ci téere yi feq yeeg waaye misaal yi muy joxe ci naxu rek daf cay tudd muuraay walante naa lii diina xataa tasturi gis makki yaa zeynabu bi taxamuri mu ne yow Zeynab mu doo am diine mukk sa diine du mat li fekk muuroo sa yaram ni la ko euh, lislaam sante kon muuraay waajib diin yi la boo xam ne du doonut ay modèle wala aw xewit woo xam ne jigéen ñi day war a def di muuru ngir ngir loolu waaye daa war a xam ne lu ko lislaam sant la li leen gis jigéen yu muuru muuru muur bopp bi ni mu ko war a muure waaye sol yeneen yu dang wala yu gàtt yoo xam ne nga xam ne day mel ni moom muuraay bi ab kii la bu bu bu xewit bu xew la rek fekk loolu demewul noonu waaye eh, bopp daa bokk ci li ñu war muur rek waaye yeneen yëpp lañu ñu war a muur li nga xam ne ni nga war a muure bopp waaye dañu jàpp ne moom boo muuree bopp rek ci si jëratu ko sax ñoo xam ne bu kilifa ñëw ñu koy nuyu bopp bi la ñuy muur rek fexe bu ko defee jàpp ne li ci des léegi amatul ci di fekk lépp nga war a muur ni la ni la ko lislaam eh, sante loolu boo xoolee waxuma la soxna jaar waaye ñi nga xam ne ñooy waa kër sëñ doom yi nga xam ne ñooy sëtti soxna jaara mosoo jee gis kenn fotoom mu def bopp neen waaye ay muuraay yu tal lañuy ñuy jël muuree ko seen bopp loolu kon mm, seeni royukaay yépp mm, dañuy dañ daan muur seeni bopp di eh, solo ni leen ko sante kon ba tax na kon loolu jigéen ji na xam ne muuraay luñ ko sant la muuraay luñ ko sant ci lislaam la waaye itam mboolem ay royukaayam yii ci murit gi noonu loolu noonu lañ ko doon defee doonut loo xam ne dañu naan di muuraayu nàngam wala kenn ko moom wala sax ñenn jigéen ñi réer nga xam ne dañ naan mu jigéen di ndaw wërta muuru di ko gaafal yooyu yëpp ay caaxaan la lu ci nekk boo ko tàmmul ci sax ndaw doo ko tàmm ci sag mag kon yaakaar naa ne loolu buñ ko ñi koy gaafal waaye loolu euh, ñàkk muur moo war a doon gaaf waaye muuraay warta doon jigéen bokk na ci li nga xam ne it waras na ko xam ci cadre bi ñuy waxtaane mooy doom ji jigéen bàyyi moo ko war yar moo ko war a xamal ba mel ni mu war a mel mu togg ko euh, yut ko jëkkëram jëkkër moom dañ koo yarloo waaye yaru dañ ko yorloo waaye yarloo wuñ ko loolu li may wax nii maa ngi wax ne boo demee ci ahadis yu bari ci na euh, ahadis euh, nabawiya loolu da nga ciy fekk muy wax ne koo xam ne da am doom ju jigéen yar ko ba mel na war a mel maa ngi yow nii àjjana yooyu li ñuy wund kon mooy jigéen baay moo war a yar ay waajur ñoo war a yar seeni doom bu ko defee bu ji jëkkër ñëwee moom yor rek lay def waaye boo xool li ci ëpp ci xaay si wax ci diggante jëkkër ak jabar dafa day day wax jëkkër ji nag jigéen euh, almaratu kat dellan jigéen mook faara yam boo ko jubbantee euh, boo bëgg bëgg bëgg boo ko bàyyee mu nekk ci dëng ga boo ko jéemee jubbanti damm ko nga xam ne kon day mel toujours lu jëm ci wàllu loolu day dafay wane ne maanaam da nga ko waroon a yow yaa waroon a tànn fas war bi saat dina jëm waxoon nga xam ne yow yaa ko waroon def laataa ngay euh, jël di indi sa kër moo tax kon boo xës bu xësee boo xësee ñëw sa kër moom solution bi mooy yor rek waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na waa ju ko jàmbat ne ko sama euh, soxna wax ci ay wax yonent bi ne ko wàcc ko mu ne ko dama ko bëgg mu ne ko kon yor ko nga di gis ne kon loolu euh, moom day yor rek waaye yaramam moom bàyyi baag yaay ji ñoo ko waroon a def bu ko defee moom moom bu jigee bay wut soxna nag mu tànn zaatu diine ñu mu ko waxee woon léegi yooyu di mat di bàyyi xel la gis ñoo xam ne dañuy wàcc seeni soxna ci yu mel noonu sama soxna day du mburu te du nangam da nangam nangam euh, loolu euh, ak ñàkk xam rek moo ko waral waaye boo defoon na nga war a def donc donc da nga koy tànn ba mu doon borom diine nga doog ko jël waaye yor yor yor gi moom mm, loolu warul tax nga wàcc ko ndax chrétien l'islam may na ko yor ab chrétien jigéen ju jigéen jigéen ji doon ab chrétien nga nga takk ko waaw kon jigéen ju ñàkk diine itam ah, négocier ak jéem a góob génn waaye nga xam ne yow loola bàyyi bala waroon moo ko moo ko ci waroon a def. bokk na ci li nga xam ne itam mm, euh, res na ko bàyyi xel ci waxtaan yu mel nii mooy jigéen ak góor yemuñu yàlla ni mu bindee jigéen ak ni bindee góor bokkuñu moo tax góor moo war a moo war a nekk ci bopp kër gi moo war a yor baat bi moo war a doon kilifa gi moo war a jubbanti jigéen ak góor yemuñu loolu moo ko waxee tekkiwul na yàlla daa doyalal jigéen wala dafa joxul cër jigéen waaye kenn ku nekk euh, jox na la la nga yelloo teg na la fa nga war a tege nga xam ne ku ku wàcc sa palaas nag dem ci place ko ca desit loolu euh, du sotti moo tax kon parité yi ñuy wax yëpp euh, fañ ko waroon a defee mooy ci jaamu yàlla inal muslimina wal muslimaati wal muminina wal muminaati wal xaanitina wal xaanitaati waaw wa saadiqina wa saadiqaati ila axiriha waaye jëmmi euh, diirante mbagg ci ay fonction ak ay yooyu loolu euh, xewit la woo xam ne jamono moo ñu ko indil ak yeneen réew yoo xam ne bokk ñoo ñoom ay aada waaye du loo xam ne lislaam lu mu xam la loolu itam lu mat di bàyyi xel la jigéen kay buy diranteeg mbagg ak góor nga ko diranteeg moom ci lu baax ca maanaam santaane yàlla ya waaye waru koo déranteeg ci yoo xam ne bu ko teg la nga xam ne moom la ko lislaam euh, digaloon ndax mm, ci doon jigéen moom jigéen rek la góor góor rek la mën a doon tax na euh, lu ci jigéen góore góore ak lu mu jàmbaar jàmbaar lu mën a bu sàcc ñëwoon ci kër gi naan xanaa góor nekku ci kër gi waaw kon loolu ñoom ñoom ñooy xaw a amoon naa leen sax bokk na ci it ci nga xam ne maanaam waras na ko jàngate ci soxna jaara mooy boo demoon poroxaan jeexit yi nga xam ne bàyyi na ko fa nga naan ñu naan la fii la doon teen bi la doon roote dagg ji fi la doon bojj fii fi la doon defe nangam yooyu yëpp li muy wundu mooy moom togul woon bàyyi ndi ko waaye daf daan liggéey loolu itam jigéen ñëpp war war ci roy xam ne lu jamono mm, indi ak lu mbir yi yomb yomb teewul liggéey ñu warte fu jigéen ju nekk la mu di ko def ci biir sëyam loolu bu ñu xoolee yooyu ñu tudd léegi dañ ci daal di xam ne kon moom ab liggéeykat la woon ñu daal di ñu daal di koy war a ci moom. su ko defee itam euh, bokk na ci yi nga xam ne euh, itam euh, suñ koy waxtaane mooy. teel a teel a jub teel a euh, tege ci saraatal mustaqim ci jigéen day mel ni jigéen li cëpp balaa balaa ñoo am diine dañuy bàyyi ba doon mag te fekk soxna jaara fii mu wàcc liggéey rek ci fanweeri at la toll booba fanweeri at mooy ak dundam gépp nga xam ne day mel ni jigéen ñi cëpp léegi bu ñu tolloo foofu dañuy def ni ñu ngi seen digg jamono foofu lañu ñu war a doxi seenum ndaw fa la ñu war a nekk ci ay caaxaan wala leneen te fekk ba nga xàmmee rek ba nga amee fukki at ba li a jullit ñëpp war la fa nga war a mele ni mele ni soxna jaara fa nga war a tàmbalee roye ndax liggéeyam yëpp ci diggante boobu la ko def kon ku koy war a xam ne naan damay bàyyi ba nangam may a jàpp wala may doog julli wala may doog di muur wala nangam ko war a teel a def ci sa ndaw ndax yi muy carrière bi yëpp ci diggante fanweeri yi ci la ko def kon kooku ak dundam barkeel na donte mm, mu guddul loolu itam euh, ñoo xam ne bu ñu waxee soxna jaara royukaay la ci jigéen ñi waaye royukaay la ci góor ñi itam ndax jikko yi ñu ma wax yépp suñ basiiru cité ko ci téeram bi ni ko góor ni ko jigéen war a meloo ni la ko góor war a meloo kon soxna jaara royukaay la ci jigéen ñi waaye royukaay la ci góor ñëpp itam waaw loolu ñu bañ ko bàyyi jigéen ñi xam ne ñëpp jikko yi ñuy wax nii des ko war a roy ci moom moo xam góor nga walla euh, jigéen nga bu ko defee itam ñu bañ koo jël rek def ko maanaam euh, maam yoo xam ne dañ koy ndamoo ak di ko pukkarewu waaye kay daa war doon maam joo xam ne des koy jariñoo jariñoo ga mooy roy ci ay jikkoom bi abi iqtada adiyun fil karam loolu euh, benn waay moo ko waxoon euh, kum doon woy hmm. bi abi iqtada hadiyun fil karam wa man yushabih ummahu fama zalam waaw léegi euh, loolu kon euh, roy ci moom ci ay jikkoom rié nga di ko ndamoo ak di ko pukkare woo rek loolu itam euh, mat naa xel la naaru ganaar yoo xam sëñ bi ne ko maa kafaaka min al aliyaa yi kaana abi kaana abi doxul sa diggante ak kawe maanaam sama bàyyi nekkoon na nangam wala sama maam nekkoon na nangam téegu euh, faggu ak kawe téegu faggu sa yëfi bopp bi jiddin laa bi jaddin kullu majdin waxal jaddun bi jiddin bi mujj loolu benn woykat koo xam maam ju baax di su ci amee dara bu fekkee farluwoo ci farlu kay topp ca fam yoon wam jaaroon loola ci ngay mën a amee dara waaye du caagi ni téye ko rek di ko nettali ay histoire am ak di ko di ko yéem loolu mën ci amee dara waal jët dun bi laa bi mujj ndax maam ji baax ñu ànd yaafus dana tax nga am dara walazina amanu wa tabaxathum zuriyatuhum bi imaanin alxaqna bihim zuriyaatihim ñi nga xam ne dañoo gëm ci seeni i topp ci seen ginnaaw jaar ca yoon wañ jaaroon danañ leen yéegal ca seeni maam yooyee kon loolu bu ñuy roy maam yu mel nii loolu nañ ko ci eh, bàyyi xel su ko defee itam euh, euh, jëmmi barab yooyu bu ñu fa demee léeg-léeg nit ñi ci seenu xir ak ñenn ñi ci seenu ñàkk xam danga nga gis ñi dafa def ay def yoo xam ne bokkut ak lañ santaane lu mel ni barkeelum ku ne xam naa ni ñu koy defee bu dee teen ba nga tànk naan bu dee dàgg nga dem taxaw fa waaye nag futtiku di xalangu loolu bokku tëg defe naa kilifa yi santaane wuñ lu mel noonu di xalangu ak di def yeneen yoo xam ne eh, ñu fay dem ñëpp dañ koy gës yooya daa di bàyyi xel xam ne barab bu mel noonu ku fa dem nga xam ne soxna soosu dundam gépp ci roy sunna dundal sunna ak nekk ci lu baax la fa nekke woon kon wari su ko sosol ay bidaa kon kay li war a def mooy ginnaaw ba nga demee ba barkeelu ca euh, dëkk ba ndax jëmmi dugg ci dëkk ba rek loolu day nag barkeelu waaw dugg ci dëkk ba rek leer ya fa nekk ak lam fa bàyyi ci ay jeexital nga jànge ca lu ci nekk nga jëfaloo ci sam xel te bañ caa jiital sa xol ci di def yoo xam ne bokkut ak li lislaam santaane yaakaar naa ne loola mooy ëpp solo jëfloo sa xel ci bu dee dàgga ja nga xam ne kii kat liggéeykat la woon ma demee dinaa ko roy ci loola donte amatuma dàgg it waaye ma liggéey ci sama kër ya may defal sama sëriñ dinaa ci gën a góorgóorlu soo demee ca teen ba noonu boo demee ca eh, barab yëpp nga jàngi fa lu mel noonu bu ko defee nag loola mooy ëpp solo ci di xalangu ak di fa def yoo xam ne ay xew yi di ñu fa def la yoo xam ne kilifa ya eh, santaane wuñ ko loolu lu mat di bàyyi xel la ci ñi nga xam ne dañ fay dem su ko defee itam li nga xam ne euh, moo ci dolliku te mooy léeg-léeg da gis ñoo xam ne ci waxtaankat yi dégg naa ci suba sëñ Maam Mor xam sa diine moo am ku muy tontu dam jotuma jàpp tontu waaye lim ci wax mooy daf kooka dafa mel ni kuy woyofal soxna sëñ Maam Mor Anta Sali ci bi muy waxtaanee soxna jaar jotuma dégg nag tàmbali waxtaan wi waaye xam naa lu mel noonu lay nuru loolu itam di mat di bàyyi xel soxna jaara ci ron soxna si si ci ron suñ Mamour Anta Sali nekkoon di ko liggéeyal fàggoo ci barke boobu li mu am mu ko kooku kenn wërta taxaw di woyofal euh, kooku nekkoon di suñ Mamour Anta nga xam ne xasida gi sëñ Mamour jàng ci suba moom la sëñ bi njëkk a def ci ak xasida maanaam di ci tagg sëñ Maam Mor Anta ba di ko wax ne ko yaa xutba zal jiili yaa man baaxal ahkaam yi yaa xawsa dillili loolu li muy wund mooy daraje yi sëñ Maam ak fa ko la ko yàlla mayoon ak fa ko sëñ bi tegoon kon kooku kenn wuru ko woyofal baa ngay wax ci moom loo xam ne da ngay wane ne eh, kawewul loolu ñii waxtaan war nañ koy bàyyi xel mat di bàyyi xel wolof nag day day def ñaare buy tagg bala balaa balaa aw tagg ma neex ak day xeeb keneen ci wet gi ak wutal nit ay wujj yooyu dañ ko tàmm ci waxtaan yi te loolu lu solo la ba ci sëriñ bu mag bi sax boo dee seetlu léeg-léeg bu ciy waxtaan day mel ni dañuy jël yonent bi daf ko aw wujj wetam di wane ne la la nekk Touba sax nekkul Màkka wala Madina nga xam ne dañuy Touba ak Madina dañ koy def ñaari ñaari wujj sëñ bi ak yonent bi ñu bëgg ko def ñaari wujj xasida yi ak ahadis yi ñu bëgg leen def ñaari loolu yooyu day mat di bàyyi xel nit boo ko bëggee dangay ngay xool lam bëggoon nga bëgg bëggle ko sëñ bi ku ne xam na ne sëñ Mamoor Anta Sali mooy juram moo ko jàngal xamal ko lépp mu nekk ci ak ronam ba mu jóge fi ngërëmam kon kooku boo bëggee sëñ bi war nga ko bëggaaleel waajuram boobu te kenn waaye daanukatil ak loo mën a kii sa jur nungoo ko ci wax dara kon ku toll siñ mag bi muy juróom waroo ko sabentalal walla jëwriñam muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga di ko sabentalal wala nga di ko làngale ak moom loolu lépp loo xam ne bu fi nekkoon bëggu ko wareesu ko defal ginnaawam yooyu day mat day day loo xam ne eh, mat nay bàyyi xel ci yu mel noonu li ci dolli ko mooy xanaa di ñaan sëriñ Muntaxa eh, yàlla yàggal ko bi te àggale yeneen yëpp ndax ku dem foofu gis liggéey yañ fa def euh, liggéeyal ko soxna jaara ci ay daara yoo xam ne ay turandoom lañ fay jànge yaakaar naa ne loolu mm, dara gën a ko rëy ci liggéey yi nga xam ne moom la fi sëñ Moustapha Bassirou na ko yàlla yokk ay leer ba na kon loolu lu am solo la loo xam ne bu ko jigéen ñëpp ma mënoon a defal euh, seeni seeni maam loolu am solo lay doon ci misaal kër gu nekk ci yeneen kër yi eh, yi nga xam ne waa suñ Sëñ Tuubaa nga foon ñu sosal leen daara yi mel noonu kon bu yàggee jigéen ñi njàngum jigéen dana tasaaroo ndax ñoom loolu moo doon seen liggéey moo doon seenu kii yar ak jàngale kon yaakaar naa loolu bu bu loo xam ne def nañ ko ci barab yi bare bari ci ci ci kër kër këri diine yi yaakaar naa dana dindi lu bare bari ci réer gi ñu doon waxee léegi ak maanaam li nga xam ne soxla nañ ko ci njàngum jigéen ngir mu mën ko euh, yare ay doom kon naan day mel ni loolu mooy li ñu kiyoon euh, li leen sunu sëriñ di wax ne wa axiru da'waana an alhamdulilah